programme tey bi euh, bu ñu ci paree dañuy wàcc ñibbi ba suba ak jàmm euh, xaaraat euh, yeneen programme yi ni ki suba moom Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu koy xaarandi suba ak yeneen ci ay candidat à la candidature yoo xam ni kon war nañu ñëw ñu càmbar li nga xam ni moom moo di seen ay dossier jamono ji kon mi ngi noonu dafa mel ni ñi ngi ñëw ñi ngi noonu di ñëw ñu xaar leen ñu ñëw ñu dékk leen li nga xam ni moom moo di suñu ay micro en tout cas voilà nit ñi loolu da ci am solo baax a baax dama ñëw mu taxawee ñu ñu partage ici euh, venez ici gudd na na ñëw na ñëw na ñëw fii na ñëw fii nii avancé grand ñëwal tuuti ñëwal tuuti ndànk rek ñëwal tuuti rek ñëwal tuuti. c'est bon. présenté wu. baax na joxal joxal seen micro. ma génn waaw salon c'est bon c'est bon c'est bon on peut y aller voilà je suis docteur Mamadou Bodian je suis le mandataire

les 22 000, plus de 22 700 ne sont pas sur la liste du fichier électoral. Et 13 000 sont constitués de doublons externes. Donc nous n'avons pas eu de doublons internes, puisqu'il y a un travail sérieux qui a été fait pour épurer la base de données de tout ce qui pourrait constituer de, de doublons internes. Donc finalement, on se retrouve avec un peu plus de 20 000 parrains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 Babacar est le maire de Thiès et à Thiès, nous avons collecté 20 000, plus de 20 000 parrains que nous avons soumis. Et on a même une bonne réserve que nous avons, que nous n'avons pas introduite dans la base. Mais au terme du contrôle, on nous dit que on, il ne nous reste que 9 000. Sur les 20 000, on se retrouve avec 9 000. Ce qui est, à notre avis, une sorte d'aberration. Alors,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 9000 rek lañ ci validé ah 20000 euh, euh, lañ ci validé 20 euh, cent dix plus précisément te ci vingt mille ci 56000 yooyu am na ci vingt mille cinq 500 yoo xamante ne nekkul ci fichier électoral bi mu am ay mille yoo xamante ne ay doublon externe la donc ñun amuñu doublon interne ndaxte liggéey bi ñu waroon a def ngir saytu suñu base de données bi fexe ba lépp li nga xamante ne doublon interne la ñu mën ko génnee ci base bi def nañ ko mu nekk mbettel bu rëy ci ñun ndaxte lii nga xamante ne moom la ñu dajale lu ñu liggéey la sur le terrain mais li ñu gën a bett mooy li xew Thiès ndaxte li ñu jébbal commission bi tollu na ci vingt mille cinq cent parrain mais bi ñu génnee ñu ne ñu ci vingt mille cinq cent yooyu neuf rek la ñu validé te Thiès nekk le fief de notre candidat muy maire Babacar Diop.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 mais lépp li nga xamante ne aussi suñu responsabilité la dinañ ko jël daal di xayma décision bi nga xamante ne moom lañu jox ñu xool lan moo ci euh, problème yi mais jàpp nañ ni parrain yi nga xamante ne moom la ñu jébbal du loo xamante ne dañ ko inventé yu am la te liggéey la boo xamante ne nit ñi def nañ ko. ndax mën nañu wax ni que Babacar pour l'instant dañ kaa dañ kaa régalé. non ñun dañoo jàpp ni dañoo ñu ngi soog a jot résultat yi li ñuy def mooy daal di dajawaat. xayma xool lii nga xamante ne moom lañ ñu jox ci ci bi ñu daal di jël ay dogal yi nga xamante ne moom moo war. di profito di remercier sunu militants yi. yi nga xamante ne ñu ngi ci gox goxaat ñu def liggéey bu mucc ayib ngir mën a dajale pare yi ci quatorze régions du Sénégal euh, ñu rafetlu bu baax a baax a baax seen liggéey bi ñu leen di wax ni liggéey bi mu ngi soog a tàmbalee ndaxte yéene bi ñu am ci réew mi dara mënu ko bloqué yéene bu rëy la. yéene transformation réew mi la te mu nekk yéene boo xamante ne président Babacar Diop porte na ko mu bëgg ko partager ak sénégalais yi ñu jàpp ni parrainage étape la élection présidentielle étape la mais li ëpp solo mooy jéego yi ñuy jël ngir Sénégal mën a moom boppam Sénégal mën a nekk réew mu naat boo xamante ne ñëpp mën nañ ci gis seen bopp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. docteur euh, Mamadou Bodian kon moom moo doon euh, wax noonu en tout cas euh, nekk mandataire ki nga xam ni moom moo di Babacar Diop FDS léegi la waar moom nag dégg ngeen li nga xam ni rek wax na ko ci wàllu woowu noonu kan yi ñoom li leen gën a jaaxal ci mbir mi mooy kan yi am nañu plus de treize mille yoo xam ni doublon externe la amuñu amuñu rek doublon interne mais itam gis nañu. lu ëpp euh, vingt mille euh, cinq cent wala toll ak vingt cinq cent ci ay parrains yoo xam ni li ñu leen wax mooy que ni ñu ci euh, fichier bi doon nag nekk loo xam ni lu leen jaaxal en tout cas pour le moment en attendant sama gars yi ñu repositionné wu ngir commenter li nga xam ni moom fam ci fàttali nag moom Babacar Diop moom moo tëj liste bi ci suba si en tout cas ci suba si kon léegi-léegi deux heures ñi nga xam ni ñoom ñoo war a jàll ci ngoon si danañu daal di commencer pour le moment ñu ñëw ci teel ma nii ma wii voilà mi ngi noonu ah euh, comme ni ñu leen ko waxee rek euh, moom mandataire ki nga xam ne moom moo di euh, Babacar Diop kon kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko euh, sànq nii rek euh, ci janook ak taskatu xibaar yi gannaaw bu mu génnee fële nga xam ni moom moo di ci biir conseil constitutionnel gannaaw ba ñu contrôlé ki nga xam ni moom moo di son candidat di kii la di docteur Babacar Diop gis na ni li nga xam ne moom moo ci mooy que ni am nañu lu toll wala lu ëpp ci vingt vingt mille cinq cent pare yoo xam ni lu ñu leen wax mooy que ni nekkul ci fichier bi loolu nag nekk na lu ko jaaxal pense que tout simplement foofu la ci diwaanu Thiès bi nga xam ni eh, fiefu Babacar Diop la yenn ci ay militants dem ba ci yenn ci zone yu reculé yi eh, dem collecté ay parrainage eh, loolu bu ñu leen wax rek ni ci vingt mille yi neuf mille rek la ñu ci validé loolu nekk na loo xam ne en tout cas jaaxal na leen trop trop ci noonu lenn ci treize mille ak lu teg ci loo xam ne ay doublon externe la yoo xam ne ñoom itam dañu ko daal di am amuñu nag li nga xam ni moom moo di doublon interne xam ni moom moo di euh, yëf yi moom mi nga xam ne moo nekk mandataire euh, kii lee di euh, Babacar Diop FDS léegi la waar gannaaw mu génnee